seen Buzz bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu xam ngeen ni ñu ngi leen di toppal actualité bu aju ci lamb bi nga xamee ni moo doon dox ci diggante Ama Baldé ak am jotaay ak koo xam ni xam nañ ko bu baax a baax fële ci diwaanu Pikine xam aussi taxawaayam ci wetu ki nga xamee ni mooy Ama Baldé muy Ifra Guissé la ñuy am ak euh, euh, pour commencer rek moom frère Ifra dama lay nuyu vraiment frère di la encourager bu baax a baax vraiment euh, ci lamb bi nga xamee ni bëri ngeen ko ni démb moo waroon dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo yàlla def quand même donte ni métti na ngeen jëlee fa li nga xam ne mooy defat di la nuyu daam aussi mbégte bu baax a baax si jotaay bi. waaw maa leen di fay. maa leen di fay. Mhm. nuyu waa Sénégal di masaw waa Pikine mhm. di masaw sama frère di ko encouragé xam ne làmb xam ne làmb nii la. Mhm. ndam mu ne indi nañ ko tàkkusaan mu ne indi nañ ko. absolument. Euh, di xam ne moom champion la te champion doomu champion la te champion lay deewaale te xam ne moom jàmbaar la àdduna nag nii la day da uti am suba nga uti ñaax. c'est clair muy neex tamit du loo xam te lu gën si moom la. Mhm. parce que ñi mu daan daan seen mbokk dañ daan jooy tey am na grandeur boo xam te ne daan nañ ko encouragé na adversaire am. Mhm. félicité ko ñaanal ko ëllëg incha allah rabbi su bëree yàlla ko borom may ndam yi nga xam te ne. yi gën a sedd ak yi gën a kawe te bii muy xëcc. balaa moo tekki ngéem su neexee yàlla dina tànku si kaw boppam. incha allah waaw parce que jàmbaar la. Mm-hmm. nit ku am ngëm-ngëm la te nit ku yiw la. c'est clair alors très bien pour commencer xëy na combat bu difficile woon la parce que yàgg na toog ngeen lu yàgg aussi bëreewu leen lan nga ñu mën a wax un petit peu coono bi nga xam ne amoon ngeen ko ci préparer li nga xam ne mooy combat bi. waaw coono moom bari na si trop trop mm-hmm. trop trop trop. Mm-hmm. coono bari na si parce que soo toogee cinq ans bay dugg sa sixième année nga war a bëre combat royal combat boo xam ne yaa ngi bëre sa adversaire yaa ngi bëre sa yeneen adversaire coomaan parce que tey ama hmm. Modou Lo la doon ak ay trent Modou Lo si ginnaaw ah bon waaw Modou wax nag nit ñi nañ delloo seen xel si yàlla delloo seen xel si yàlla mooy ama doomu dëkk bi la papaam def na lu ne si làmb tey papaam moo tabax maison partie sociale Dantec papaam bokk na si ñu ko tabax yaa ngi comprendre. Mhm. kenn mënu kaa génnee Sénégal. c'est clair yaa ngi mhm. tey am xale la xale bu ndaw ndaw la mu gën tuuti seen kër responsable bi mbër bu ko fi gàddu yaa ngi comprendre. Mhm. moo boot seen kër nañ ko bàyyi doomu sénégalais la kenn mënu wax ba génnee ko Sénégal nañ bàyyi jaamu mu bëre. c'est clair yaa ngi comprendre. mais Ama di bëre Modou ñeneen di bëreeg am fukki nit di suul yaa ngi comprendre. Hmm. fukki nit ñoo mun kenn. te jàpp nga ni loolu amoon na ci combat bi. du jeex du jeex du jeex laa la wax du jeex ba Pikine gi mu dëkk laa la wax du fa jeex yaa ngi comprendre. Hmm. mun ñu ko xoxotal mun ñu ko génnee si làmb xëy na nag lii la suñu borom dogaloon ñun dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ma amaana tey su daanoon dina. jur leneen lu dul lii. c'est clair c'est mais yàlla na ko suñu borom wàllu yàlla ko suñu borom. fay hmm. xolam. très bien Ama Baldé. amiin amiin ah. yaa bi alo mu nekk nit koo xam ni vraiment physiquement ñëpp amoon nañu ci moom yaakaar c'est vrai que aussi confiance bi nga xam ni moom la doon wane il a été trop confiant quand même ci combat bi moralement naka la Pikine di dundee tey ak défaite bi nga xam ni moom ngeen jël d'autant plus que amoon ngeen bu baax a baax confiance ci combat bi. Euh, man su ma la waxee dëgg man défaite méttiwu ma. Hmm. man défaite méttiwu ma de. su ma méttee métteetu ma parce que xam naa ne Ama rek ak Modou su yekkee ñoom ñaar rek ay bëre kon cooli si ñu lay féete su fekkee Ama rek ak Modou Lo bëri bëre si ñu lay féete Modou Lo nag champion la su daanee Ama war na ko daan. Mm-hmm. parce que def na lu ne si làmb. absolument ñu ngi koy félicité yàlla na ko victoire bi ji. ñu ngi koy félicité bu baax yàlla na ko victoire bi ji. Mm-hmm. parce que bu weesoo tamit lu si mus a wax tamit làmb la woon rek parce tey moom mu lay wax benn affaire. am ku ti bëreel si kër àdduna mhm. sama bakkan bii laa si gar ba keroog yàlla di indi mais su jeexee rek jeex na su jeexee jeex na dañuy continuer suñu activité mhm. continuer nekkaat suñu entraînement ñun ñu continuer dem liggéey waat mais su waxoon tey lay bëri waat ñu bàyyi waat suñu liggéey yëpp tey toppaat waaw le fekkee dañ ko mus a wax dara lu ñaaw ñu ngi koy baalu ak mhm. di ko félicité yàlla ko victoire bi ji voilà alors ban moral la euh, mbër bi nekkee jamono ji ki nga xam ne jàmm ak salaam jullit mën a amul jullit la julli la ñëw na nekk na seen kër su toog sant yàlla xam ne moom julli la ab taalibe la nice après mu génn toog ak nit ñi waxtaan kafre xëy dem doxi ay soxla waaye mhm. jeex na très bien alors ku juumul doo daanu daan naa dégg mag ñi di ko wax façon bi Ama Baldé aussi bëree ndax am ngeen ci satisfaction loolu ngeen doon xaar aussi euh, pour mu bëree woo ko mais aussi ndax da ngeen gisoon ni combat bi loolu laa laajoon non non ama moom kenn du ko conseil si dara parce que lépp lu ko nit di conseil moo la ko dàq hmm. si làmb man amul lu may conseil am man daal yéene bëgg ak laa am lu may ànd moom lépp lu ko nit di ko gën a xam lépp lu nit di si làmb mais tamit làmb dafa am ñu yàgg nañ seetaan làmb sooy daanu cuune ngay doon quoi hmm. làmb moom bis booy daanu cuune ngay doon hmm. d' accord alors façon bëre bi dégg naa ay ay mag yu ñu xamoon ci làmb jàpp ni vraiment tamit euh, ama moo saraxe boppam en quelque sorte dafa bàyyiwul xel bu baax a baax mbër bi muy bëreel mel ni daf ko xaw a euh, xeeb en quelque sorte. ba ba looloo waral xëy na mu bëree ni mu bëree. loolu jàpp yaaw daal sax sooy bëree moom doo xeeb xeeb amu si. Mm-hmm. dégg li ma la wax bisu daanu daanu cuune ngay doon bisu daanu cuune ngay doon. Mm-hmm. xeeb amu si kenn du bëree wu loo bëgg roi des arènes titre bi mu ñëw sa biir kër nga naan da ngay xeeb ama xeebul kenn du xeeb mbër mhm. ndax ni ko am ne du xeeb nit sax bay naan day xeeb mbër am na fekk ab taal bi toogandoo moom añandoo moom mhm. mën na fekk ab néegu baraak sax dugg seeg nit tëdd ak moom nelawandoo moom foofu mhm. amul amul am ko du xeeb kenn kenn kenn kenn d'accord alors am na ñu naan aussi Ama dafa bëre combat bi ak pression jom rek moo tax feeñul mais dafa bari woon pression géej na bëre beneen bi euh, biir Pikine ñu ngi xalaat ni aussi titre roi des arènes bi soxla na ko loolu tamit euh, bokk na ci li gën a tax xëy na mu sacrifier combat am looy tontu ci loolu. Oh, sacrifier combat am donc jël sa combat def si ay millions. Uh-huh. nga naan da ngay ñëw di sacrifier combat déggoo wax ji ma lay waxaat. sànq mm-hmm. laa lay waxaat tey. Mm-hmm. bis booy rek ngay doon. yaa loolu képp la sacrifice benn combat am la mu waroon def yëpp def na ko bëri na gis ngeen loolu laa mujj demee. amuloon pression aussi ci combat benn pression non ku bi ko bëgg a waxal si kaw tur bi di nga wax ak moom ko bëgg a jëflanteel si kaw di nga jëflante ak moom di tooñ ay journalistes yi waxtaan moom moom. après. Mhm. te loolu ñëpp gis nañ loolu noonu. d'accord waaw. alors naa ak Modou Lo ba dem VAR ñoom ñaar ñu taxaw di waxtaan kon pression amul foofu noonu. d'accord maa ngi dégg ñu bari naan kombaa bi dafa diisoon ci Ama ndax dafa mel ni Ama bëriwul woon moom kese bëriwul woon ak mu Lo kese. non bëriwul moom dong. bëriwul moom dong. lan ngeen bëgg wax foofu dafa am ñu ko doon xeex wala da ngeen. jàpp bari ñu ko doon xeex. te loolu lépp ñun xam nañ si lu baree baree baree baree bari. Hmm. daa am ñu ko doon xeex pire. ñu ko xeex pire ñu bari di ko xeex ñëpp ko doon xeex ñëpp ko doon xeex waaye am na ku ko xeex ñun nga xeex. Hmm. am ku ko xeex ñun nga xeex ku ko xeeb ñun nga xeeb ku ko bëgg ñun nga bëgg ñi ko doon xeex ñëpp nag nañ dem ñu xool fu wànnent di mujj ki bëtam ñun Pikine nañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee mhm. fa lañ lépp xam nañ biir xam nañ biti yaa ngi ko xeex bari na du jeex du jeex waaye nag mun ñu ngi xeexal koo xam te ne ku bëri ay garde la yi xeexal ku bëri ama képp ku ko bëgg ñu bëgg la képp ku ko bañ ñu bañ la barke alxuraanu karim te lépp lum leen jaral benn ñun dinañ ko jaral fukk. Mhm. waaw. d'accord lépp lum mu leen jaral benn dañ ko jaral fukk. Mhm. ku am sa loo maye ku am sa loo nga ko ñun amuñu ku dul am ku ko bëgg ñu bëgg ko ku ko jàpp ñu jàpp ko ku ko bañ ñu ba ko. nit ñi nag dañoo soxor soxor weesul lii xale bu ndaw di dem bëre yor seen kër yor responsable yor ay njabootam yow nga taxaw ne lii du fi amee pour lan ba du fi amee ñoom ñoo yàlla wala ñoom ñoo yonent yi te loolu dund ngeen ko ci combat bi ay tapet lañ. ay way law dàqu lañ ay tapet lañ man Ibra maa ko wax ragaluma dara li may wax ay tàppet mooy def lii jàmbaar du jàmbaar day bëgg jàmbar yaa ngi comprendre ba si ñeneen outside. waaye hmm. Pikine de lu fa waay bëgg ba jaar fa Pikine loo fa mënti organiser loo fa mënti def du fa am man maa la wax lii nii. d'accord am muy politiciens yeeg yëpp luñ fa waay bëgg du fa am. ñoo leen ëpp mbooloo ñoo leen ëpp buri d'accord alors mais lan nga may wax ci digg géew bi gis nañu ni dafa mel ni tension amoon na même avant bi di siffler sax euh, am lu jotoon a dox ci diggante Ama ak Modou Lo ci sànniwanteeg yu demee noonu ndax tension boobu noonu da nga jàpp ne. dañu leen tooñal wala loo damay sawar di si wax loolu ñoom ñaari mbër mbëri la am nañ droit def ko si. mais mbër bu mag bi ñu tuddee làmb ji nag mu jël ay affaire di ko sànni Ama. vidéo yaa ngi fiy tas pour lan loolu. yow dañ laa tuddee làmb. Moustapha Guèye nga bëgg wax moom la. moom la jël affaire flagrant délit di ko sonn sànni amu pour lan yow dañ laa tuddee làmb doo yem si làmb yow bëri nga ba sa carrière jeex mosoo jël roi des arènes yow ngay jëlaate ay gàllaaj di ko xëppaat sa carrière jeex na yëpp mosoo leen dégg wiiw roi des arènes face ak ni muy toll nga ne yow da ngay sànniwaate ay gàllaaj yow yaay kan yow doo yem tam maanu. mais li ngay wax ni c'est grave dafa am vidéo yoo gis. ci ci li nga koy accusé ni wala. ma wan la ko wala. waaw allez-y wan ma ko si. ma sama téléphone. vidéo bi mooy Moustapha Guèye am am am lu muy am lu muy sànni Ama ah, Baldé moom moom ngay wax. al ah, ma mhm. allez-y. Mhm. lii lan la lii lan la lii amul lu ko gën a leer. Mhm. Sénégal dafa xat lu waay di def na def lu rafet. te lii avant combat bi la. bi Modou Lo ak Ama taxawee ok. yow say ñaari doom mooy bëri. Mhm. mais yow lan ngay xëppaate la la ngay sottiwaate yow doonte ne suñ ko dóoroon muusu ndox sax mu jógee si ñun war na jël muus ndox bi génnee ko defar làmb ji mais di jël di ko xëpp lii pour lan la. yow mhm. bëri nga sa carrière yëpp déggoo roi des yow mosoo dégg mu ah, yow nga taxaw fii tey yow ngay naan da ngay xëppaate ay da jël di leen di ko sottiwaat. d'accord làmb ji daa bëri ay farfarloo doo yem. Mhm. ah Moustapha Gueye Moustapha Gueye lan la. mais que lim sànni yéen après jot ngeen vérifier xam lan la. aussi wala wala image rek ngeen ko gisee déggoo la wax dama la wax. mais est-ce que du mouchoir la sànni rek. peut-être non yow nga bëre xam li si làmm yow xam li si làmm ak làmm ju bëri tension bi nit di bëri titre waa des arènes ngay jël ay affaire di ko sànni mag bu toll ni yow doo am looy rus Moustapha Gueye. man ku ko nawoon la waaye barki Seydina Mohamed ku ko tey laa gën a ñàkk naw Moussa Fagué tey man Ifra tey laa ko gën a ñàkk naw. ndax li mu sànni. bu doon muy sànni Moussa warul sànni déggoo li mu la am fekkoon ñu ñoo jël benn affaire sax sànni ko ko moo war na mën a jël ranger ko ba mu jeeg génnee ko foofu noonu mais di jël di sànni waate mel ni xale xale yi sax defatuñ lool ñun dañoo yaakaar làmb yi su ñëwee ay xeex xuloo fa am mais ban xeex xuloo fa am. Mm-hmm. dañoo si discipline bëree si fair play ah ama ah, dem félicité Modou Lo mooy loolu mais di teew di mag bu toll ni yow champion nga champion Tigre Fass boo ne mosoo dégg roi des arènes Fass bu carrière yëpp man li ma jot fekkee seen carrière yëpp mosumaa dégg ne bëri nañ roi des arènes ñoom pour lan loolu d'accord xeetu promoteurs yi nekk fii naan dañuy dem dañoo bëgg seen mbër bëri ay titre roi des arènes sa bàyyi ngi yor ay bori fees del munoo fexe ba fay ko ngay wër naan da ngay yàqi làmb mhm. pour nañ maanu boolewu leen si bokkuñu si luñ la boolewul bu si bokk ni da am ngor am grandeur ah li ngay def pour yàq làmb jàmbur jéem ko def si sa bopp wala nga jéem ko def say boru baay. li nga dëgg su jotee dañ koy wax. Mhm. defet bi dafa am defet bi dafa maa métti de. métti mhm. li Modou Lo daan ama de. mais mhm. xamal la moo ma métti. liñ ko sot liñ ko sot a ma d'accord mais sot bi ban ban côté la. Euh, ci côté politique bi nga bëgg a wax wala ci côté adversité. maanaam man ah allez-y ku waxoo xam ne man APR la. Mhm. man APR la am ah am na droit fort fi ka neex côté politique bi dañ kaa sot gravement yaa ngi ay côté adversaire am moromu mbërëm biir Pikine dañ kaa sot gravement man amul lu may nëbb man damay wax mu jàll si digg bi parce que su jëlee titre roi des arènes arrangé wu leen. Mhm. ndax bëriwuñoo ak moom yaa ngi comprendre moom arrangé wu arrangé wu leen ay xiñaan laa lay wane ay nit ñu soxor lañ man maa ko wax man amul lu ma si nëb man kenn mun maa ko xotal kenn mun maa dóor kenn mun maa génne Pikine Pikine laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee. tout à fait kenn mun maa wax dara lu man lu ma neex laay wax. d'accord si gi hmm. li may wax ay sources yu leer laa si am. Hmm. ay iñaan la moo la ngay di soxor di jaw di pour lan. très bien donc kii doomu jàmbur dañ ko bàyyi. d'accord li man soo gisee may waxee nii man soo gisee may waxee nii. parce que damaa war a waxee nii ginnaaw yàlla yonent samay ñaari waajur man tey lépp lu ma mel ama tey su ma demee bay liggéey ba nit ñi mën maa ndaw ginnaaw yàlla si mhm. loxoom lay jaar mhm. parce que kilifa bu ni sama xarit Ismaïla ba may jël pour yóbbu ma port moo ko ne jëlal ma kii nga yóbbu ko port mu dem liggéey li ma la wax ay 2012 la mhm. est-ce yaa ngi comprendre kooku tamit de jëlaat ma yóbbu ma teg ma si wetam di ma encouragé ama xawmul xaalisam xaw ma sama xaalis su ma soxlaa oto wala mu soxla sama oto kenn xamul ko moom lii parce man maa war a waxee nii parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi samay ñaar waajur ko li ma la sama liggéey ak jaar na si ay loxom di ko wax di ko wax mhm. parce que bañ may a jël liggéey moom moo ne jëlal ma kii mu dem mu liggéey ñu jël ma yóbbu ma tey ma liggéey ba mun see takk sama soxna yor samay doom bu fu ma neex si àddina ma dem tey ngay transitaire bu ñu dootul présenté bien sûr yaa ngi comprendre li uh-huh. nii war naa waxee lii uh-huh. parce que moom du a gore amaguñu ay millions yu ñu ko may mais am nañ suñu kàddu am nañ suñuy nit yoo xamante ne tey mën nañ faa dem. Mm. jël suñu xaalis ñëw ñu may ko. yaa ngi comprendre mm. li ma expliquer nit ku nekk na góor nga parce que dañoo juddunoo yaranoo màgganoo tey su nekkoon président de la république far force dañuy ànd. Mm-hmm. su nekkoon jour far force dañuy ànd comme que mbër la dañuy ànd moom si mbër ba keroog muy tekki ngeen très bien waaw alors Ifra gisee gis nañu ni après combat bi donte ni bari woon na tension ginnaaw bi nga xamee ni Ama Baldé daanu na mu def gest bu noble quand euh, dem félicité ki nga xam ni mooy Modou Lo ak làkk yu demee noonu. et puis di di di kalme booy yi tamit. geste bu noble seen kër la fekk baax. Hmm. barke Rasulaay seen waa kër kenn gënu leen ay noble pire lañ xamoo luñ am ak luñ ñàkkul man maa lay wax loolu. ok ah seen waa kër xamoo luñ am xamoo luñ ñàkk mun nañ am seen mu yem si ñoom. xam nga loolu mooy noobu noobu du xaalis. Mhm. est-ce que yaay comprendre li mu def loolu la war a def te def na ko tey làmb am na daan nañ ko mu dem encouragé Modou Lo dalal ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko ndam li jik. amiin yaa rabbi Modou Lo yàlla na ko ndam li jik. amiin amiin yaa rabbi ñu koy félicité aussi Modou Lo ñu bu baax a baax. Mhm. Mhm. am ñu koy encouragé di encouragé suñu bopp mu dem defaruwaat. entraîné. ñu préparé suñu combat am nañ combat bi des. incha allah rabbi ñu préparé ko bëri. très bien alors li mu doon def aussi di calmer boy yi gis nañu ni doonte ni tension bi bëri woon na moo doon. calmer boy yi aussi loolu la mel nit mhm. moom loolu la mel moom na xëy léegi taal motoom romb côté parcelle moom anyway moom amul problème boobu noonu la mel nit da koy seedeel moom noonu la mel. d' accord waaw. Ah. très bien alors mais Ifra mënu ma la ko bañ a laaj parce que vraiment bëri na ay euh, ancien gloire yoo xam ni am nañu ak ñoom jotaay ñuy dénoncé ni. techniquement Ama ah, amul ay mag yu ko accompagner ci ci làmbam gisu leen ni quand même jot na tamit ngeen defaraat entourage bi. yooyu na sa risque pour waxante dëgg rek. il faut combat Ousseu Ndiaye ba jot yàlla tey gi ni muy bëree ba combat mu mën loolu ni muy daan bëree rek la daan bëree xam nag nit ku nekk si gis-gis. yaa mhm. ku nekk si gis-gis mais nii la daan bëree nii la déggee wiw nii la bëree ba roi des arènes am na loo xamante ne nag du ay waxu micro. ok neen la ko mhm. après loolu. dañ si gën a waxtaan. d'accord très bien alors yàlla def na euh, jamono ji mën nañu wax ni yéen a ngi dégg malaat beneen combat muy seen diggante Gris Bordeaux. Gris Bordeaux waaw ñu ngi déglu naa suñu beneen combat suñu diggante Gris Bordeaux. Mhm. di ñaan yàlla yàlla may ñu si ndam gu sedd guy. amiin yaa rabbi incha allahu rabbi. Mhm. oui ban message de motivation nga bëgg a jëmale ci Pikine mais aussi message de félicitation pour jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo waa parcelle. non waa parcelle na leen parce que ñun ñëpp benn lañ. Mhm. ñun man mii am naa ay mbokk parcelle. Mhm. parcelle daan naa fa dem vacances yàlla na leen ndam li jig yàlla na leen ndam li jig yàlla ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax waaye làmb la woon rek dañ doon mhm. wax pour jaay làmb ji. bëri nañ ko gaaje nañu yàlla na leen suñu borom defal jàmm. ñu ah. tamit defal ñu ko defal ko suñu leader. Pikine moom amuma leen lu ma siy wax. Pikine moom dimanche am seen tafatin yàlla na seen daan tafatin. amul leen lu ma siy wax. mais mais booy yi mobilisation bi ñuy defal mbëru Pikine de façon général rawatina mobilisation bi ñu defal Ama Baldé aussi ok xeebul kenn bësam xeebul kenn mooy li ma lay wax nii xeebul mbër xeebul nit bay xeeb mbër xeebul kenn Ama moo leen ko ji mhm. d'accord Mhm. alors du ñàkk am na ñoo xam ni man mm, nga leen a gërëm yow ci turu ama ku mel ni père Tafanaar muy papa ci yéen. di ku leen di accompagner bu baax a baax aussi ak képp koo xam ne rek jàpp nga ne vraiment aussi mi ngi leen doon accompagner yéen xale yi. non gërëm moom ñu ngi gërëm ñëpp jàpp. ñu si jàpp ayer mhm. ñi xamul ñu gërëm ñëpp. Mhm. di gërëm waa koñ ba di leen masaw di leen baalu àq. di gërëm waa kër ga sama gars yi ñun ñuy ànd ñëpp xam ne àdduna la tey bis naqar ak bisu bànneex day am. Mm-hmm. nañ muñ te sant yàlla te bañ a xuloo suñu biir. te ànd eggali li ñu doon def yàlla incha allahu rabbi dañ si gën a may doole. Ifra gisee di xarit ci Ama Baldé moom la seen bés doon am ak jotaay ñu ngi lay gërëmaat bu baax a baax si jotaay bi. maa leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. di gërëm waa koñ ba di gërëm suñu gars yëpp. Mm-hmm. ñëpp nag sonn nañ si. sonn nañ si sonn nañ si. très yàlla defal jàmm. amiin yàlla yokk ñu sutura. amiin boole ñu suñu wërsëg yi. bàyyi ñu ni ñu daan ñu continuer di seen bës di encourager képp koo xam ne yaa ngi Pikine ak képp koo xam ne yaa ngi doon jàppale ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé mais aussi di féliciter Modou Lo ak waa Parcelles doon am jotaay ak ki nga xam ne mooy Ifra Guissé beneen jotaay ak beneen invité sur la chaîne fi leader fii